ay ay porte yu am classe. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. yaay bàjjenu gox. waaw man maay bàjjenu gox bi. yaa jiite jigéen ñi. maa jiite jigéen ñi. naka nga tudd. maa ngi tudd Dégène Loum. Dégène. Loum Dégène lan mooy seen rôle ci quartier. lan mooy suñu rôle ci quartier bi. xanaa jàppale askan bi rek. Mhm. li ñu war mooy ñu dugg ci gox bi. Mhm. jàppale ñi nga xamante ni dañoo nekk ci situation rawatina ci santé. ci santé ci santé. wér gu yaram mbir mi nag yemul ci wér gu yaram lépp ndax bàjjenu gox li mu ëmb dafa bari war naa mën a saytu ñi nga xam ne ñi ngi am jafe-jafe bi war naa mën a saytu ñi nga xam ne nii dañoo néew doole war naa mën a saytu ñi nga xam ne ni dañoo aaja ndimbal fii si quartier bi ñu di ci dox am amdalaa amdalaa waaw quartier amdalaa fii ci quartier amdalaa mm-hmm. ñuy raf ñaanal na góor gi nga xamante ni tey ji moo waral bis bii mm-hmm. ay góor sax laay wax ñu di leen ñaanal yàlla fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jógee seen njaboot yàlla na ci yàlla teg loxo si barke Nabi Moustapha ndax man tey bu ma nekkee demee ba nekk président Badianu gox commune de Joal Fadiouth yàlla ak ñoom la ak Malick Diop du ma ko fàtte moo nekkoon relais communautaire bi maa ngi koy ñaanal moom it yàlla na yàlla guddal fanam ci barke Nabi Moustapha ñu li war suba ak ngoor guddi ak bëccëg relais baa ngi nii sama ginnaaw muy Ndeye Seck relais communautaire volontaire la duggee ci mbir mi man maa ko tànn mu gis ma ci sama daw sama xel mu ñëw ni daf may jàppale boobu ba léegi delluwul ginnaaw arrièreul wonkul métit luwul mbir mi jafe lool nag métti lool dinañ dugg ci kër ñu tuutal ñu ñàkkal ñu fayda ñàkkal ñu fulla waaye du tax ñu gestu du tax ñu wonk du tax ñu sëqat ndax li ko waral mooy ñun dañoo defoon volontaire ni dañuy def te yàlla tax te li ñu wax si mbirum santé rawatina bàjjanu gox dañ doon gox dafa war a nekk nit ku oyof nit ku yaatu nit ku bëtam sori nit ku mën a muñ nit kuy tanqamlu nit ku nga xam ku mën a dimbali doomu aadama te am bàmmeelu biir loolu moo taxal ñu tànn bàjjenu gox rawatina communautaire. bàjjenu gox euh, kon lu métti la. parce que yow yaa ngi may wax sante wax ma wàllu wér gi yaram wax ma wàllu néew doole yéen ñooñu bu ngeen leen di dimbali fan ngeen di jëlee. li ngeen di dimbali suñu loxo jotu suñu ginnaaw de ñuy tàllal nag ki nga xamante ni moo nekk ci commune bi di Sophie Galadima ñoo ngi koy ñaan ci yàlla ak yonent bi yàlla na yàlla taxaw ko si liggéeyam matal lépp. ñu bëgg nag mu utal ñu kee saq moo nga xamante ni dañu koy def pour ndimbal ñi nga xam ne dañuy ñëw di ñu jooy seen soxla ñu di ko ñu di leen jàppale. amuñu waaye mënuñoo gàntu ndax yàlla moo nu fi teg ñu ñu jógee nag dañuy fekk jullit yi nga xamante ni ñoom it ñu woyof xol lañu ñu mën dimbali doomu aadama te duñ ko wax. suñ leen tàllalee loxo rek ñu jàppale ñu ñu dem jàppale ñooñu kon ñooñu it ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal leen. fi mu ne nii fii ba tan ba xel koom poor Pape Sarr social bi nekk poor bu ma ko xamee yàlla ak moom la moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla lii yan bi yàlla ko yàlla woyofal yàlla na yàlla yàggal ko lool te ñu fekkee ko ñun ñëpp. yéen seen seen bàjjenu gox yi da ngeen di cotiser wala lan ngeen di def ba ba jël yenn fonds yi wala da ngeen di xaar ay bonne volonté ñëw dimbali leen pour ngeen dimbali leen ñi wala lan ci lan ngeen di yëngu ba am xaalis. ñun bàjjenu gox yi. bi ñu tàmbalee si bàjjenu gox yi chaque le dañuy daje sama kër ñuy nag natt 500. cinq 500 boobu solidarite keesu solidarité la. rawatina nag relais communautaire yi. am na boo xam ne tamit ñu ngi ko bokk ak relais yi. bàjjen tous les tout bàjjen tous ñu koy def ñuy sag la 27. ñuy daje ñuy dajale suñu tuut. du ko def kees. képp ku fa am problème. foofu lañ koy waxtaanee seet lañ lay dimbalee ñu dimbalee la ko. te yàlla tax te kenn du ko wax kenn du ko tooge loolu mooy suñu rol ñoo ngi ci nag ñuy ñaan nag di tàllal ñëpp loxo képp ku ñu mën a jàppale amuñu salaire de volontaire la ñuy def waaye dañuy def te yàlla tax fay ak fayu yàlla nag moo gën bu nit noo ngi xaar suñu fay suñu borom waaye noo ngi xaar tamit doomu aadama yi fay yooyu ak xéewal liñ ci séntu ëllëg ci suñu borom ñoom it ñëw dugal seen loxo ndax ñu bokk ko ak ñoom yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon nag uh, mu nekkoon fii ci Daaru Salaam alhamdulilah uh, dégg ngeen bàjjenu gox li def xam naa da ngay bouger tuuti rek waxtaan ak relais communautaire yi ñoom it seen jafe-jafe comme jigéen ñi ñooy wax seen soxla uh, sama réalisateur rek may jëlaat tuuti rek ma àndatu mën nga ñu fàttali tur bi. bàjjen Dégeen Loum. bàjjen Dégeen Loum. waaw dëkk Amdalaa. Salaam macha amdala amdala kay daaru salaam amdala ah, kon kon alhamdulilah macha allah bàjjenu gox baa ngi noonu kon nag dañuy jël relais communautaire yi daal di ñëwaat. ba tey ñu ngi fii ci Hamdallah soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. noo tudd. man Ndeye Seck laa tudd. relais communautaire. communautaire fii ci Hamdallah. fii ci Hamdallah waaw. yan jafe-jafe ngeen faral di am ak askan. askan bi moom am nañ ci jafe-jafe yu bëri sax. parce que ñun bàjjen bi bu fekkee ne dafa topp jigéenu wérul bi moom moo koy topp ba keroog ba muy am doom su amee doom ba ñibbisi si kër gi jébbal ñu ko ñun relais bi ñun ñooy topp liir bi ba ba muy di ko peser ba ba muy am ñaari at. su amee ñaari at ñoo koy topp ba ba muy am 5 ans. Mhm. ñu doog a wàccoo ak moom. ba muy am 5 ans ba muy am 5 ans la ñu doog a wàccoo xale bi si koñ bi. Mhm. mais léeg-léeg dinañu dugg ci quartier. wala ñu dugg ci kër kon. Mhm. am fa jafe-jafe trop. ci yan façon jafe-jafe. fi mu ne nii tey da ngay dugg ci kër. soxla xale bi pour peser ko. wala nga soxla ko pour jox ko garab. muy vitamine yi ñuy jox xale yi ak meben bii garabu saan bii. ñu ñëw war leen koo jox. seen parents yi dañuy lànk. ñàkk yi ñàkk yi ak kii bi toqal yi waaw vitamine. Ah, mais nag loolu gars yi dañ koo ragal mais lan lan moo waral gars yi ragal loolu. ah toujours dañ leen koy expliquer parce que xamal nañ leen ni vitamine bi ñuy jox xale bi bu amee 6 mois hmm. la koy tàmbalee jël su amee 6 mois lay jël mu vitamine bu bula lay lañ koy jox bula bi. mu nekk quatre guddi ci bu bi su demee ba amaat yeneen six mois ci la ñu koy tàmbaliwaat nag joxaat beneen euh, bu rouge bi chaque six mois yu nekk ñu jox ko ko garabu saan bi bu amee at la koy tàmbalee jël dañ leen di xamal ne leen garab biñ leen di jox day dëgëral yaxu xale bi ah baax ci santeem bi te dafay leeral ay bëtam ñun toujours bu ñu leen koy joxe dañ leen koy wax dañ naa leen seen xale jot na jël vitamine jot na jël garabu saan mais am na ñoo xamante ne ba tey ji mënaguñoo comprendre da ngay dugg ci kër daal moom moom day metti torop léeg-léeg sax nga ne ko wa indi sa doom a peese ko ñu naa la day nelaw ak mm-hmm. damay liggéey bu ma ko yekkatee daf may sonnal mm-hmm. kon yéen relais communautaire yi daal yéen a ngi daj ci kër yi lu mburu dajul ñoo ngi ñoo ngi ciy daj lu jafe sax ba ci mm-hmm. vaccination yi passé sax vaccination yi passé sax ñun dugg nañu ci kër ñu dàq ñu dugg nañu ci kër ñu saaga ñu mais terewul dañuy xëy duggaat fa est-ce que yéen yéen a ngi leeral askan bi njëriñu vaccin yéen yéen a leen koy leeral. dinañ leen ko leeral bu baax dañ leen koy waxal mais am na ñoo xamante ne nii gëm-gëmu mag ñu njëkk ñañ topp ba léegi loolu la parce que da ngay dem wax ak nit mu ne la sans bàyyi ñun ba ñuy xale ma suñoo ñàkkook mhm. xamuñu luy ñàkk kon ñun suñu doom du ñàkk suñu doom du def nii. Mhm. mais dañuy wax ba sonn naxante ba sonn fu ñu dem nag tey ñu dàq ñu. bu subaay dinañ fa demaat parce que dañoo tàggat ci loolu. moo tax ñu dàq la nga dellu. waaw dañoo dañuy dem di naxante waare parce que santé xale bi la ñuy dabu. comme santé xale la ñuy dabu te ñun ñoo volontaire ne mën nañoo koo def parce que fayuñ ñu ci ñaar dërëm. joxuñ ñu si dara. mais léeg-léeg nga dem sax nga dégg ñu ne bu seen poos di euh, oyofee rek nga di gis ñuy wër te la ñuy am seen poos lañ koy def te yàlla xam na ne fayuñ dara. ak man nag loolu lu ma jaaxal la yéen relais communautaire yi ak euh, liggéey bu mucc ay bi ngeen liggéey ci dëkk bi amu leen salaire amu leen dara. amuñu ci salaire de wax dëgg yàlla. amoon ci saleer moom. tëj sa kër dem ñàkki après ñëw tëdd dem ñàkki topp xëy suba ba ngoon di ndox lu ngelaw li metti metti yaa ngi ci terrain bi. ñoo ngi si terrain bi relais yi moom wax dëgg yàlla moom sonn nañ ak bàjjen yi parce que tey fu relais jógee bàjjen day jóg su ma war a peser yi tamit damay contacter bàjjen bi mu génne xale yi. amiin ah, soxna si loolu su génnee xale yi ñu dog dem ànd bokk suñu liggéey liggéey ko. Mm-hmm. ñun ñooy bokk li ñuy dox ñooy bokk li ñuy liggéey. Mm-hmm. mais du relais du bàjjeen amuñ benn salaire moom. ñun nag ñu ñoo volontaire parce que ba ñuy dugg wax nañu ko. Mm-hmm. nee nañu ñu amuñ salaire ñu ne d'accord nañu pour jàppale suñu waa koñ jàppale suñuy doom moom moo ñu jaral ñun ñu dugg ci. buñ leen jàppalewul yéen di waaw loolu moom dëgg la moom. Ah, waaye nag kon nag kon nag ñu ngi demandé ñi nga xamante ni ñoo ŋànk loolu ñuy daal di jàppale ñi nga xam ne ñooy relais communautaire yi bàjjanu gox tëj sa kër dem ñàkki ñu lay ñàkk kersa suba ba ngoon nga ñëw duggaat sa kër taggu wàccaale woo dërëm métti na ban message ngay lancé ñi nga xam ne bu ñu feebaree dem hôpital euh, ñu faj leen wala seen jabar buy am doom ñu jox ko docteur yi te docteur yi buñ tourné ñëw bugg leen a faj ñu leen di daw euh, ñàkk xam. ñàkk xam la parce que barki démb am na ku ma ko waxal ma ne ko yow. mun naa ma ne ko sa doom bu juddoo. mun naa ma ne ko balaa ñu koy jox yaay wala buñ ko joxee yaayam balaa muy génn hôpital dinañu ko ñàkk. te ñàkk boobu ñu koy ñàkk xamoo ban ñàkk la. Mm-hmm. mun naa ma ne ko bu yaramam tàngee di nga ko indi. Mm-hmm. mun naa ma ne ko ñu ñàkk ko wala ñu faj ko. Mm-hmm. mun naa est ce que xam nga lañ koy jox mu ne ma déedéet ma ne ko kon buñ jogee pour ñàkk seen doom yi da ngeen war a bàyyi ñu ñàkk seen doom yi te xam ne jaboot bu ne jaboot la. mais est-ce que lii état waru ci jóg wax ci ku ci deful lu dul yoon ñu daan lay alamaan parce que wàllu sante lu sensible la nga ñëw war a faj ñun la doo fi faj amoo confiance ci say docteur loolu ba ndëkk la. état il faut mu wax si. dinañ si wax dinañ wax sëñ daara yi tamit. parce que bu fekkee ne xale yi nekk si koñ yi dañ leen a dugal ci école araab yi ñuy jàng. soo demee tey jii si araab bi nga waxtaan ak ustaas bi pour vacciner xale bi mu ne la euh, ñun ay sëñ daara lañ suñ fii kenn du fi dugg di ñàkk. sëñ yi waaw sëñ daara yi léeg-léeg da ngay dugg ci kër amuñu confiance ci docteur yi. ñun de moom si vaccination bi passé dem nañ si daara yu bëri loolu lañ ñu wax. te fi mu ne nii ñun dañuy dem si kër. Mm. ñu ne ñu carrément sama doom jàngi na boo ko fekkee ci arab ba ñàkk ko. boo ko fekkee ci arab ba ñàkk ko man yebal nañ ma fii si benn daara. Mm. baayu xale bi moo ma ne dimbale ma ngir yàlla sama doom na ñàkk bi ma demee ba egg ma wax ko sëñ daara bi wax ko parent ba ca kër ga parent bi ne ma amul benn problème ndax man ñàkk yi moo ma teree liggéey tey xaaral ma dem jëli xale yi indi leen bi mu leen jëlee pare ma yéeg si ko nuyoog sëñ daara bi wax ko ko ba pare mu ne ma ma fii benn xale du fi ñakku sëñ daara bi waaw ma ne ko comme xale yi du ñàkku mu naa ma ne ko xale bee yaayam nee na naa ko ñàkk papaam nee na naa ko ñàkk mhm. mu naa ma ne ko jox ma ko ma ñàkk ko parce sama doom la sama doom jàmmeñ la bi mu bañee yaayam moo yéeg wax ak moom wàcc xale bi jox ma ko ma ñàkk ko mais ñi ci des ñàkkuwuñu moom. soxna si maa ngi lay jaajëfal loo jeexale maa ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm waa waa yéen waa étoile jamono mm-hmm. seen liggéey rafet na ndaxte wax dëgg yàlla jafe-jafe yi ci koñ bi yëpp ak jafe-jafe yi ci quartier bi mm-hmm. yéen yéen a tax fi mu ne nii nit ñi di xam jafe-jafe yi ñuy dundu mm-hmm. ndax daan nañ ko am te xamuñ ñu ko war a jooyee ba étoile jamono taxawee ba léegi nag ku am jafe-jafe xam nga foo ko war a jooyee xam nga foo ko war a jooy jooytoo ñu ngi gërëm nag suñu mag yi si koñ bi jàppale nañ lool jàppale nañ ñu góor ñi tamit jàppale nañu di ñaanal yàlla Pape Sarr mi nga xam ne moom la ñu samp fii ci quartier bi ci Amdala bi yal na yéen bi oyof ci boppam yal na yéen bi oyof ci boppam parce que Pape ku baax la mhm. ku oyof la mhm. ba mu fi nekkee bañ ko ne yow la ba tey mhm. Pape teggiwul tànkam benn yoon toujours mu ngi seet lu développé quartier bi mu ngi seet lu baax ci quartier bi mu ngi seet lu boole quartier bi loolu yëpp dañ ko ciy ñaanal di ko sant di Ndeye Seck Ndeye Yacine Seck waaye Ndeye Seck lañ may wax di nuyu nag di leen yóbbante nag ci madame. madame Sibi waaw ne ko nag. Mm. waa acteur communautaires yi. Mm-hmm. nee nañu dëgg la nag gis nañu. Mm-hmm. gis nañ parce que gis nañ lim ñu jàppale mais doyut waaw nañu doole bu ñu doolee ñu jël waa quartier bi tamit ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm waa na leen gestu kon nag euh, madame si bi ci Marguerite lay jaar di sama xarit euh, di rakk ci madame si bi dégg nga li bàjjeen gox yi wax ak relais communautaire yi ñuy wax nag sëriñ daara yi ñu gën a jàppale parce que confiance mooy dëkk nit ki bu fekkee amoo ci sa armée confiance amoo ci say médecin surtout médecine loolu nekkatul dëkk ñuy wax nag état bu Sénégal taxawu relais communautaire yi ci wàllu vaccin yi mu nekk farlaa la force ndax xale bi def ci am droit ndax xale moominu yàlla la sëriñu daara yi ci waroon a jàpp mais malgré ñenn ci sëriñu daara yi dañuy mujjee di dàq relais communautaire yi war nañ leen cee alamaan ñu daal di ñëw ak euh, suñu maman bu baax soxna si maa ngi lay nuyu. fay nañ la ku baax ki tur bi naka la. Euh, Aïssatou Tall. yow lan nga bugg a leeral ci quartier Hamdallah. li ma bugg a leeral ci quartier Hamdallah xanaa ko jàppale jigéen ñi rek ndax loolu la ñu digal loolu la ñu doon waxanteeg di ko ko ñaan. te yàlla tax waaw madame si bi te dimbalee it xale yi ñu liggéey te ñaan yàlla sunu quartier bii sunu ndox yi métti na bu tawee du ñu am fu ñu jaar. même bu dee tabaski lay tombel ku lay woo dalay woo téléphone say mbokk yi ba ca biir dëkk ba sax dañu lay tàllal ay loxo naan la jox nañ la loxo bi dañu la wax ne la asalaamaaleykum ñoo ngi lay siyaar ci julli gi mm-hmm. duñu fi mën a dugg si mm-hmm. loolu it bokk na ci quartier bi mm, te yokk itam ndox yi nga xam ne ci biir kër yi mm-hmm. ñàkk na torop mm-hmm. ñàkkum ndox mi waa ñàkkum ndox mi waa ak lëndëm gi courant bi mm-hmm. ñu dolli ko mu gën a leer ndax suñu xale jigéen ñi gën a ñeme ci yoon wi mais yéen waa quartier Hamdallah jafe-jafe bii nekk ci dëkk bi ak dëkk bi ni mu delloo ginnaaw su fekkente ni si tan bi ngeen di yëngu wala jigéen ñi xam ne kenn toogul ñii ngi ci tan bi ñii ngi commerce yan jafe-jafe ngeen di dund instant bi ah jafe-jafe yi ñuy dund metti na parce que yoruñu suuf bu sutee suuf dañ ko jal ko amul dara doo liggéey te jigéen ñi nag jàmbaar lañu lool nag ni góor ñi nekkee jàmbaar nag noonu la jigéen ji nekke jàmbaar mhm. dañuy takk seen sër di liggéeyi mhm. bugguñu dara mhm. lu ñu am defal seen i njaboot kon nag ku leen dimbalit ñu jël ndax loolu bokk na ci jafe-jafe yi itam. madame commencé na wala commencé gul ci ndimbal yi leen di. ah ndimbal yi moom ah. xëj na bu ko yàlla taajee ba mu gën a toog ndax noonu ko koy ñaanal yàlla mhm. ci barke sang ba ca Medina mhm. di ko ñaanal yàlla ci barke sëñ Fallou ci màggal gii ñu jógee barke maam Sera Fall yàlla na ko yàlla gën a taaj taaj ñu ñun ñëpp nag mhm. ñuy fekk lépp te buñ ko fekkee yàlla nan ko tal ak suñu njaboot ak mbooloom jullit ñun noo xaar rek la ñu doon xaar ci moom di ko ko wax rek te di ko ñaan ñaan googu rek la ñuy xaar ci madame si bi euh, daaru salaam euh, alhamdulilah gis ni moo fi manqué ak lan lañ ñu war a yokkaat mooy li wax waxaat du bare wax xalaat foo jëm rek la mooy li ma la wax rek courant bi yoon wi ñu jaar te dimbale jigéen ñi ñu liggéey te dimbale ndaw ñi kese damay dégg jigéen ñi nga xam ne ñu ngi wann loor bu ñu waree am doom dégg naa jafe-jafe yu métti ngeen di dina ko métti ndax amuñu fu ñu jaar jafe-jafe yooyu métti na ndax fi ñu jaar lañ dul am ko amul yoon doo dem yoon rek moo tax mënuñoo dem fu ne ngay dugg kon daal fi yoon waaw sécurité mooy. mooy problème bi. mooy problème bi waaw loo jeexalee sama yaay li may jeexalee. xanaa yéen di leen nuyu rek. Mhm. te di leen doolee gërëmaat te di leen doolee santaat yéen waa étoile jamono. Mhm. ndax di dox nii bugg xam jafe-jafe nit ñi. Mhm. ñu di la wax ne la lii la ñu bëgg ak lii la ñu bëgg. loolu bokk na ci jaamu yàlla. te loolu da ngeen a rafetal. te bëgg ngeen ñëpp ànd. ñëpp mobilisé wu. ndax ñun ñëpp comme ñun ñoo xàcceendoo. ñun ñoo dóorandoo. ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla yeggale ci barke yonent bi te di bi Sarr Pape ñaanal nañ ko ndax ku yëg mag la ku respecté la ku am cër la du wax boole ñu ci du def boole wuñu te ku nekk day dugg ak tànkam ba ci sa kër ne la yaa booy nangam ak nangam te loolu bokk na ci am cër di ñaanal itam sunu xale yi moo ñoom Ousmane ñii nga xam ne ñoom ñooy xale am dalaa yu xale yu góor yi ci suuf ñoo ñu dañu leen di bàyyi ki yàlla ak yonent bi ndax ñu ngi liggéey takk nañu seen i ndig jox ñu cër lool nag boole ci nag lu ñu soxla ñu jox ñu ko di wax ak ñun di ñu neexal ndax ma ku koy neexal rek loolu la bëgg ndax dina def ba def lu mu munul dina wax it ba wax lu mu xamul kon nag ñoo ngi leen di sant suñu xale yi yàlla nañu gudd fan ak ñëpp mbooloo amin mu nekkoon waa alhamdulilah euh, ngeen continuer di abonné ci étoile jamono bu ko defee dara dootul leen ump ñu daal di ñëwaat